beaucoup de saisies des saisies record boobu ay dizaines de tonnes euh, ci ci affaire bi lan moo tax mu ñu jékki-jékki ba ci àgg rek euh, comme que yow ci loolu ngay ngay liggéey jékki-jékki ba ci àgg rek gis bon fulgurance su ay ay saisies record lan lan moo ko expliquer. <laughs> c'est question bi ko dana mais on va essayer de répondre à tout sa c'est vrai que le sujet tabou c'est quand les gens ne veulent pas en discuter parce que tey jii y a une réalité qui est là au Sénégal. ku amul ku amul ku nekk sa biir kër di consommer drogue am nga ku nekk ci biir koñ bi di consommer drogue. xam nañ la société comment ça marche. tey jii par exemple damay dëkk ak nit doomam di def loo xamante ne ëllëg ak si biir mën na andi jéey. Mm. du mu ci bëgg a wax pour ne pas gêner sa maman ou bien son papa wala ses parents. loolu dafay andi tabou mais andi aussi li ñuy wax stigmatisation. Mm-hmm. il faut que les gens aillent vers cet aspect là qui est très important enlever tout ça en parce que encore une fois c'est un problème de santé publique. nit ki bu feebaree bu waxul jàngoroom du ñu ko mën a faj te yi tamit gis nañ ne. Euh, faits divers yu bare bare bëri mi ngi am ci consommation de drogue abusive xale bi day dem ba benn moment ñu di ko nëbb du ñu ko wax ba un jour mhm. mu xëy def jéey ci biir koñ bi mhm. ñu doog ne nañ ci jóg fala alors que mënoon nañu aller vers la prévention mhm. li nga wax léegi aussi am na solo parce que lu tax ñu jóg ba léegi non tooguñu ba léegi tooguñu ba léegi seulement moom laa wax ci à l'entame de mon propos dina am ay saisir record am na ay saisir record dina amaat yeneen saisir record ci la jëm man c'est mon analyse mhm. moo tax ma doon wax ne à l'entame de mon propos mhm. je lance un appel aux autorités ñu donner des moyens conséquents aux forces de défense et de sécurité ñi gën a redoubler de vigilance sur nos frontières parce que euh, la circulation facile des des des stupes dafay amener à la consommation mais aussi nañu fexe aussi que ñu dooleel la société civile ba nga xamante ne dinañ mën a prévenir les populations parce que quelle que soit l'ampleur du, euh, du, du problème tant qu'on en discute comme on faisait sous l'arbre à palabres on va vers solution. mais récurrence bi lan moo koy expliquer. mais non tout d'un coup euh, ça comme ça te alors que est-ce que est c'était pas le cas est-ce que amul yu bëree bëri yu dugg. parce que jàppoon nañ fi jàppoon nañ fi aussi voilà justement et, et, jàppoon nañ fi loo xamante ne aussi benn bateau boo xamante ne dafa yeboon. Mhm. ay oto. Mhm. yoo xamante ne dafa yeboon kii. Mhm. nee la gis nga gars yi ñuy toogee nii ñun di def ay séminaire si naka la ñuy defee ay kii ñoom itam noonu la ñuy toogee di def ay séminaire noonu la ñuy toogee di ils ont des avions ils ont des bateaux ils ont ils ont ils ont ils ont les mm-hmm. de leur politique léegi nag li ñuy def mooy ñuy boole ñaari lutte yëpp ñaari pexe yëpp nañu ko boole les forces de défense et de sécurité nañ leen jox moyen yu conséquents ñu barricade suñuy frontière ba nga xamante ne lu bari du fu mën a dugg parce que États-Unis ñu ngi koy def te teewul ñu ngi dugal drogue bi ci biir mm-hmm. Mm-hmm. ñu jëm yi nga xam ne produit drogue tamit c'est tout près donc euh, voilà. voilà mais na mais nañu nañu nañu euh, nañu changer de fusil d'épaule nañu insister. Mm-hmm. nañu insister sur la réduction de la demande il faut aller vers les populations même ci plan stratégique bi ma la doon wax léegi defoon nañ ci benn benn benn module boo xamante ne dañ ko buggoon def dans le milieu scolaire mm-hmm. pour comme ça ni ñuy jàngalee histoire géographie observation. ñu di ko jàngale le méfaits de la drogue di ko jàngalee la drogue. parce que c'est un fléau qui mais oui. Mhm. parce ah que jàngal c'est-à-dire lu expliquer. di ko jàngal dañuy dañuy former d'abord les enseignants ñi ñuy wax comme par exemple li ñuy waxee ne. Euh, ci observation ñi ne lii kat dafay rey nit. lii dafay yàq nit voilà comme la cigarette et tout ça parce que gis nga fi mu ne nii le milieu scolaire est très mais loolu c'est dangereux. ah non non c'est pas dangereux. mais dama xamul contour yi lan nga bëgg a wax foofu quoi. waaw mais xam nga njàngale njàngale rek. rek enseigner les dangers de la drogue. les dangers de la drogue mais mais da ngay andi drogue bi nii ci classe bi. non doo ko andi ci classe bi doo ko andi ci classe bi mën nga ko andi ci saaf parce que mi ngi dépendre ci âge bi nga xamante ne moom ngay waxtaanee ak nit ki. mais tey jii ne pas parler aux enfants de la drogue c'est les exposer au fléau. Mhm. parce que gis nañ ne bu demee ba dugg ci biir établissement scolaire bi et je vous assure que c'est une réalité. en parler aussi ça peut leur pousser a waaw ñu dañ ko man maa ngi man moo tax ma ne la. Mhm. moo tax ñuy jiital la formation. moo tax ñuy jiital la formation parce que dañ wax naa ko sànq ma ne la lu su fekkente ne wu ñu une la bonne communication. sa mhm. peut créer l'effet inverse. Mhm. aujourd'hui su fekkente ne par exemple jël nañ ay nit ay ay te commencé woon nañ ko. Euh, euh, euh, ci ci les inspecteurs d'académie yóbbu woon nañ leen salle yi leen former parce que. module bi il faudrait que ñu dugal ko ci biir euh, curriculum bi pour léegi les enseignants mën di xam naka la ñuy communiqué aussi ci biir et c'est important parce que bu ñu ko defulee rek on les expose alors